yow mi am jafe-jafe ci wàllu néew kàttan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën a gaaw produit 100 pour bio baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga boole ko lem ak limon di ko naan matin ak soir mu daal di saafara say jafe-jafe neexal sa biir néegu sëy am nañu pommade boo xam ne boo ko diwee ci sa awra mu daal di kuy dëgëral di jël ko waaye nag du ko guddal ma ne la bile moom itam dafa de la jural ben effet secondaire jokol ak ñun yow mi ko ci 77 751 59 59 wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am ci satisfaction totale boko amul ñu daldi de lay vous sa xaalis ñun rek ñoko tap tap zen.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 Dibiteri Uba, pour la première fois, dibiteri professionnalisé. professionnel ndawal musoko ko dégg de am suñu marinade bop am suñu tiafka bop am suñu secret bop na nga xamé ni non la McDonald amé ay secret non la dibiteri Uba amé ay secret dibi Uba safi yàpp Ouba, michoui Ouba, poulet Ouba, pigeon Ouba, pentade Ouba, bol Ouba. Kaimawakla, Fou wax la débit dibi fait 77 629 0000 00 fa saaf 77 633 57 57 Fou Michoui neexee Moui dibiteri Uba Fou poulet neexee Moui dibiteri Uba te nag dibiteri Uba Commandel Nous livrer le fangane boule ne tamit nga Tok Seker commande Tabaski defal say commande Bo Amecheo, De defal say commande boi dalal Ainit De defal say commande nga Khamni dibiteri Uba dalay defaral top bu doo defar dara débiteur yi Uba livré la cay Uba moo jaaxal réew mi Chers amis fidèles internautes, vous qui avez choisi la chaîne des grands événements VIP People TV s'informer juste c'est vrai nee naa leen abonner, ngeen abonné ba bu cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo tey jeudi 21 septembre 2023 nous di leen numéro actuel du jour Nous allons li gën a fës ci xibaar bi ci journée bi ñu indi ko faram-fàcce ko jox ko yi nga xamante ni yéen ñiy seetaan tàntaan leen ko ba fi koy tambalé nak manam moy citation direct bi nga xamanteni ki di soxna Aïda Diallo nekkoon fi soxna Cheikh Béthio Thioune yónnee na ko nga xamanteni moy Ahmed Suzanne Camara bok ci coordinateur mouvement des enseignants pour l'Alliance et la euh, République du Sénégal muy APR ki di Ahmed Suzanne Camara bi mu jàkkaarloog suñu natango yu Sunugal 24 dafa yëkëti won ay cadeaux am relation boo xamante ni daf ko feeñaloon ci diggante kii nga xamante ni moo fi jiite woon ministre de l'intérieur di Aly Ngouille Ndiaye ak ki xamante ni mooy soxnay Cheikh Béthio Thioune boobu di soxna Aïda Diallo xamal ni ni que soxna Aïda Diallo dafa amoon relation ak ki nga xamante ni moo doon Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'intérieur ba tax na bépp cant boo xamante ni kii nga xamante ni di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké tere woon na ko kii di soxna Aïda Diallo ci doole Aly Ngouille la ko soxna Aïda Diallo doon defee moo tax ñu ràññee ni que depuis que Aly Ngouille Ndiaye nekkatul foofu ci ministre de l'intérieur kii di soxna Aïda Diallo déggootuñu benn centam ginnaaw kàddu yooyu nag nga xamante ni yëkkati woon na ko foofu suñu naataangoo yu Sunugal 24 ñun ñu reprendre ko fii ci suñu émission actu du jour kii di soxna Aïda Diallo yónnee na kii nga xamante ni mooy Ahmed Suzanne Camara di membre APR citation direct Ahmed Suzanne nag bi mu jotee citation directe bi assumé na propos yooyu te mi ngi koy confirmé waat ne li mu wax du ci dindi ñaari salaamaaleykum lu am la donc en tout cas kii di soxna Aïda Diallo yónnee na kii nga xamante ni mooy. Euh,

démb amaloon na benn visite foofu ca Tivaouane Thiénaba ak Kaolack ginnaaw nag ba mu demee foofu nga xamante ni mooy euh, Tivaouane Qui di premier ministre Amadou Ba am na journée bo xamanteni dafa chargé won trop ci mercredi 20 septembre Bobu, ginnaw bi nga xamanteni amna entretien ki nga xamanteni moy khalife généraux de Tivaouane khalife généraux Ndiassane khalife généraux Tianaba li jëm ci walu gamu bi nga xamanteni mo jëm ci 2023 manam magal juddu yonent bi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ni ngi koy amalé fofu ci dëkk bu tedd ba di dëkk Alaaji Malick Sidi di ak fofu nga xamanteni moy Tianaba ak fi nga xamanteni moy Ndiassane nga xamanteni xamante ni premier ministre Amadou Ba amal na fa euh, visite bo xamanteni daje na ak ñoom waxtaan ba nopi ba mu ñëwé fofu ci Tiwawan dem na ci lancement yi nga xamanteni moy lancement travaux aménagement yoon yi nga xamanteni ñing koy défar muy yoonu Pire yoonu yoonu ak benn série de visites bo xamante ci sentier yo yoo étape bu nek amna lo loo war nañ fa def mais ñu réserver ko ben accueil bu chaleureux ci différentes foyers religieux yooyu nga xamante ni jaar na fa dellu na aussi di rappeler réellement mom sans formuler ay prières manam mi ngi koy ñaan sous endroit sur son plus 14 heures chrono avec le chef du gouvernement ginaaw lolu aussi chantier bi nga xamante mo wara taxaw fofu muy hôpital tuawon bi xamal na ni ko dinañ ko livrer lu mu gëna gaawé ci ay diru bëss dem na aussi xamal ni ka gàmm bi ki di président Macky Sall jël na ndogal wax na nañu yok sécurité bi fofu ginnaw biñu déggé won ki di Serigne Mansour Sy jamil yëkëti won ay cadeau xamal ni ka am nañu koy menacer de mort waye ki di Amadou Ba rassuré na wat tuawon rassuré na khalif bi di Serigne Mbaye Sy Mansour ne président de la République jël na ay ndogal jox ko ministre de l'intérieur Antoine Diome pour que ñu renforcer sécurité bobu en tout cas muy visite bi nga xamanteni ki di Amadou Ba amal nako demb Fofu, ci gis image yaa ngi di gis lors de sa visite à Tivaouane en prélude du Gamou 2023 célébrant la naissance du prophète Mohammed paix et salut sur lui bi mu Fofu aussi dem na Ndiassane bi mu Fofu. dem toujours dans votre acte du jour euh, du jeudi 21 septembre 2023 dañuy ñëwaat encore delu le ci New York xam ngeen ni que 78e assemblée générale euh, bu Nations Unies Fofu. lañ ko doon amalé ginnaw lolu gis nañ fa ki nga été moy président de la république du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall ginnaaw dire que fa un cadeau, jël défense Sénégal jël défense ou Afrique xamle fa lu bëree bëree bëri jàkkaarloo kii nga Thomas Bach par rapport ak euh, Jeux olympiques yi nga de la jeunesse Junior, ñu fii ci Sénégal en 2026, Madame Diel, nous avons jël nañu xamal que bii dernière fois en tant que président de la République Momoui muy Fofou en tant que chef de l'État du Sénégal ci assemblée générale des Nations Unies ginnaaw bi mooy dernière mandaam de xaar élection 25 février qui aura donc successeur le 2 avril Inch'Allah, allah mu def passation de service ginnaaw loolu nak amna ben message bo xamanteni ki di Macky Sall def nako manam message bo xamanteni moy euh, message d'adieu nañu déglu ju message bobu nga xamanteni mom le président de la république amna naa ni ñoo seetaandoo vidéo bobu nga xamanteni Macky Sall def na ay au revoir am wala ay adieu foofu euh, assemblée générale des nations unies mom Macky Sall mi ngi xamal je voudrais remercier les pays membres de notre organisation pour leur amitié et leur collaboration porter la voix du Sénégal noué et entendre les amitiés dans ce concert de national où harmonise nos efforts communs vers nos fins communes. Aura été un grand honneur pour moi au nom du peuple sénégalais. Je voudrais dire ma gratitude à tous les collègues en les priant d'accueillir mon successeur avec la même amitié et la même considération. Je garderai pour tous les mêmes sentiments d'amitié et d'estime je suis confiant que dans la tradition sénégalaise d'ouverture et de dialogue, mon successeur sera fidèle aux relations d'amitié confiants qui unissent notre pays et tous les membres des Nations Unies en tout cas qui dit président Macky Sall remercie remercie remercier ñi collaborateurs de la ñu woon doon ak ami Sénégal doon Ligue, ak Nations Unies mais aussi que le successeur qu'on a remplacé en 2024 le sommet Nations des Unies Bobo nga xamante ni l'Assemblée assemblée générale nous avons considération biñu am ci moom am respect bi am ci amitié bi ñu am ci moom ñu am ko ci en tout cas mooy li ñu leen jëloon foofu ci la e assemblée générale des nations unies bi nga son excellence le président de la république Macky Sall teewoon na fa. toujours dans votre acte du jour euh, du 21 septembre 2023 xam ngeen ni que manifestation yi fi amoon le 1er juin ginnaaw bi ñu arrêté ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko condamné ko à deux ans de prison pour corruption à la jeunesse nemmeeku woon nañu ay manifestation fépp ci biir Sénégal ak bitim réew ci lañu gissone nak am ñoo xamanteni ñi ngi doon saccager ay consulat bi ci nek nak moy consulat New York bi nga xamanteni mo nek fofu ci ca États-Unis d'Amérique gissone nañu ay ñooñu Ousmane Sonko dugg ci bir consulat bi yàqate ko jaxase ko caxar caxate ko ba mu yaqku ginnaw loolu nak lancé won nañu ben avis de recherche manam ci ñi nga xamanteni ñom ñoom ñoo bokkoon ci ñu doon yaq ginnaw caméra yi bi ñu leen filmé woon foofu li ñu leen mën indil ci xibaar que dembu ci goudi japp nañ ci kenn kenn ci ñi nga xamanteni bokko nañ ci ñu doon saccagé consulat bi ki di police new yorkaise bi amna kenn ko xamanteni jappo gum nañ ko ci en attendant que muy identifier yeneen complice am yo xamanteni mom la àndaloon moy limay wax souvent rek ku nit ku nekk mën nga def li la neex am nga sañ-sañu def li la neex waaye

téekuñu téekuñu waaw filmé jël ah seen boo filmé nga ci am problème non c'est bon parce que man ngay jël ñoom la ñoom la jëm jëm jëm jëm voilà euh, ñii euh, boy Sonko yi la waaw ñoo def scandale fii waaw euh, scandale lañ def dañ leen arrêté ñu ngi nii donc tu as vu ces réewande yi bu ñu ko defee fii fii du Sénégal fii Amérique la fii lan la vous avez vu voilà dañ leen dañ leen arrêté dañ leen koono fii voilà

we here. God have mercy. The mayor of New York is corrupt. the mayor of New York, Eric Adams, is corrupt. And we are going to the city hall to manifest that. And he's instructing the police department no. to do something unprecedented is to keep people from manifesting their First Amendment rights our First Amendment rights are going to be violated. Yes. and we are not going to allow that. Today, it seems like NYPD says they're going to arrest the whole Senegalese community. because... kon vidéo bi ñoko ko seetaanandoo muy vidéo bo xamanteni ay ñoñ la yo xamanteni nénañu ay sympathisants ak ay xaritu Ousmane Sonko lañu dañu bokkoon ci parti boobu nga xamanteni ni dissoudre nañ ko muy Pastef ginnaw bi nga xamanteni ki di son excellence le président de la République Macky Sall ñëw na fofu ci soixante-dix-huitième assemblée générale des Nations Unies ay sénégalais ay patriotes ñëw téru ko ñenn ci ay nit bokku ci Ousmane Sonko dañu ne dañuy saboter visite boobu manam dañuy vilipender dëkku Sénégal naka lañuy ñuy vilipender dëkku Sénégal yor ay pancarte di wax non à la dictature ki ko jiite nag di kii nga xamante ni mooy Ousmane Tounkara Ousmane Tounkara ku nekk xam na ni que c'est un Sénégalais waaye bu muy dugg États-Unis ay papier Guinée la duggee Guinée la duggee États-Unis ci biir loolu sàcc la fa nekkee woon sàccum oto maanaam ay gang la woon maanaam oto yu ñu doon sàcc yëpp di ko rawale di ko indi ci loolu la nekkoon ginnaaw bañ ko ci jàppee woon nag mu nekk gang si lañ ko proposé benn deal xam ngeen États-Unis parfois suñu bëggee jàpp gang ñëw ñu jàpp la am na benn deal bu ñuy def ak yow maanaam ñu tëj ko ci diiru atu kaso ba noppi génnee ko takkal ko bracelet pour que mu doon seen indicateur dénoncé ñu bëree am na ñu bëri tey jàpp nañ leen foofu ca États-Unis muy ay sénégalais di ay nigérien di ay ghanéen kii di Ousmane Tunkara moo leen vilipendé ginnaaw nag ba mu amulee bi si amatul dara mu nekk di défendre Ousmane Sonko sur des lives kii nag moo jiite woon manifestation yi nga xamante ne am na foofu mu recruter ay xale ñii mu fay leen cinquante dollars ñii mu fay leen cent dollars ñii deux cent dollars ba noppi ñu dajé ay éléments yoo xamante ni amoon na fi de mars 2021, euh, projeté ko ci ay écran di wër biir New York pour wane ni que Sénégal ñoom état du Sénégal mooy rey xale yi mooy def lépp alors que tout est posé par ki nga xamante ni moo doon leader di Ousmane Sonko bi nga xamante aujourd'hui il a été condamné à deux ans de prison ba un nekk sous mandat de dépôt pour sept chefs d'inculpation ci biir loolu nag ginnaaw manifestation yi ba nga xamante ni ñu ngi doon amal seen pancarte comme ni avons nous un nous avons nous Macky Sall avons Macky Sall hôtel nous avons Macky Sall invité que nous la police américaine que encercler bar, bouger comme nous koy Sénégal ku fa manifester nangam sangam alors que état de droit parce que nous manifester en plus que c'est de la honte nous suñu ci aduna ce président guen dem benen dëkk ñi gis ñitu dëkk bobu ñëw di yuxu di saga moy li wax c'est des gens antidémocratiques c'est des gens antirépublicains, c'est des ignorants c'est des drogués c'est des voleurs c'est des gens qui ont perdu leur avenir qui ont perdu toute leur vie à travers ces ñak gëm sen bop à travers ci sen ay à travers ci ay manipulations kon donc vidéo bobu la firndeel ci bir manifestation bi gis ngeen police new-yorkaise bu mu leen fekkee foofu mooy li may wax rek ay drogué moom fu ñu dajee moom su yàggee rek mu pëcc ko moo tax police new yorkaise bi am na ñu bëre ñoo xamante ne arrêté nañ leen foofu ca manifestant yi kon donc li ñuy wax Sénégal je crois que ba ñu débordé foofu police new yorkaise daf leen teg loxo. toujours dans votre actu du jour euh, du 21 septembre 2023 lii nag di Guy Marius Sagna ñu xam ko muy honorable député bu parti PASTEF bi ñu tas ci Ousmane Sonko bi fi créé un mouvement boobu front frappe dégage di saaga français yi xam ne entreprise français ñom ñoo ñu tardeel mom du kolaare bo rek lepp lo xamanteni jëm na ci France manam mi ngi non ci vidéo gis ngeen ko jamono yi gis nañ ko fofu ci France mu nekk ci mbedd di photo ginnaw ginnaaw loolu mu joggé fofu dugg ci train bi di dem Bruxelles ginnaw loolu nag gis ngeen gi Marius Sagna mi ngi non ci image bi nga xamanteni mi ngi fofu tok jàkkaarloog wa TV5 ñi koy laaj ndax Ousmane Sonko su bokul ndax yow mën nga nekk sen plan B mom lan la japp ne na Ousmane Sonko moy don candidat alors que Ousmane Sonko a été rayé des listes électorales Ousmane Sonko mënul voter mënul tànn munul tànnalul kenn kon je crois que waa Pastef ba léegi dañu nekk di nelaw mais li ma ci jaaxal mooy Guy Marius Sagna est-ce que tey sénégalais yi war nañu gëm propos Guy Marius bi taxoon tey ñu taal Auchan yi ba ay sénégalais ñàkk ci seen liggéey bi taxoon ñu taal station Total yi ba tey mu créé beaucoup de chômage bu tax tey ñu yàq fi ay bagages yu bëre ba tax tey ambassade France sax ñu bëre suñu demandé visa sax duñu leen mën a may. ñu bëri suñuy rendez-vous duñ ko am à cause li nga xamante ne mooy mouvement bi Guy Marius Sagna teg tey Guy Marius Sagna moo profité si seen ay privilèges bi ngeen ko votalé mu nekk député ba noppi am passeport diplomatique am léppam moo nekk biir France di gundaandaat dem toog ci média français yi di média français yi waaw taxaw foofu di wax mi ngi noonu ngeen di gis maanaam en image vidéo bi nag mënuñu ko teg parce que euh, France 24 moo ko moom parce que suñ ko tegee dafay indi droit d'auteur moo tax ñu capturer leen image boobu TV5 baa ngi noonu ci ginnaaw kon donc je crois que toujours la jeunesse

te suñu jógee toog Sénégal di saga français alors que pour ñoom yaakaar nañu français yi ñoo mën a régler seen problème yëpp gis ngeen Ousmane Sonko problème bi mu ko amee fii mu jël ay avocat sénégalais bi mu ba jaaxle dafa dem jëli Juan Blanco, un avocat français donc ñi leen di saagaloo français yi di nan français ni ñoo leen tardel ñoom suñu jàqee ci français yooyu lañ dem. donc est-ce que nit mën na bëgg la pour ba pare bëgg la compte en tout cas muy image boobu ñu leen indi loon ci Guy Mari Sagna gis ngeen ko foofu mi ngi noonu toog ci plateau TV5 di gundaandaat di yaataa yumbe di wax lu ko neex toujours dans votre acte du jour euh, du jeudi 21 septembre 2023 dama bëgg ñu seetaani vidéo bi dellu si waat est-ce que askan bi c'est pas une façon de de de de de de montrer que peut-être qu'il n'y a pas de raison de se de se de se battre est-ce que n'est pas une raison euh, de dire de vous dire que euh, Ousmane Sonko il mérite le sort et donc dañ koy baye dans les liens de la de la justice. askan musul wax lolu te du ko mës a wax. wa mais pourquoi il n'y a pas eu. Euh, la même réaction qu'en 2021. xëy na am na lu xëy na lu ngeen bëggoon te du ko am. moy xëy na mi pëccoxoo jaxasoo. ba situation indi ñu euh, toxal ay élection ñan ñoo bëgg réew mi pëccoxoo jaxasoo ñan ñoo doon ñan ñan ñooy wootee pëccoxoo ak jaxasoo ma ne waaw déglul bu baax wolof laay wax dama ne xëy na li ngeen bëggoon mooy réew mi pëccoxoo mais ñan ñoo bëgg réew mi pëccoxoo ñëpp ñi nga xam ne ñi réew mi di doxee jamono ji ñoom arrangé na leen le président Macky Sall wéy nekk fi arrangé na leen ñoo ñooy tax may wax mais mais li ngeen boo boo nee li ngeen c'est-à-dire yéen ko sekk ak Macky Sall du ñun ñooy woote non ñun xeex bi bu doon ak Macky Sall kese la kon dina yomb makisal mooy élément bi gën a ndaw ci xeex bi système la encore une fois système ba nag la nekk ca biir dafa bari. fii kay ñi doon prédire le kawo yenn la. non non. yéen doon prédire le kawo yéen doon souhaiter. si le le le le kawo. soxna si ndànk rek dama ne xeex bi xeexu système la li lay wan ne askan wi dañoo xam ni ñuy xeexee ak fi ñuy xeexee ak fa ñu war a xeexee mooy jamono ji ñi ngi xeex xeex boo xamante ne nii bal tàkkul sagar xeeñul te métit bi muy def ci ñu ñu jàmmaar lool moo ëpp métit bi amoon ci événement yi passé donc le peuple est en avance sur vous. le peuple est en avance sur les hommes politiques. Sur vous. Pas, sur nous. Sur tous les hommes politiques. C'est le contraire. Le peuple est en avance. Ce, peuple marche, ce peuple marche avec nous, chante avec nous. Non. nous tournons le disco gauche si nous tournons disco droite si nous seen la scène leen. xam nga xam nga yéen da combat final. Mhm. da y a wax combat final. le combat final nous xam nañu lan la lan la waron don da ngeen don wax naan Macky Sall bu ne day dem 3e mandat du ko fekke midi du ko fi du ko du fi. du ko kan fi fekk loolu ak fu ko waxe alors euh, tawal tax day taxawal taxawal hmm, pause. may ma ma pare man mom fi non defal dànk du ma toog ci plateau bi may ma ma pare. ngay wax naka su dul nonu te do joxe firnde taxawal. may ding ma may ma pare de. ding ma may dama ne fan lañ waxee ne. ma Macky Sall bu bëggee def 3e mandat midi du ko. fekke na leer ding ma may ma pare ban radio la ban télé la. kam ko ngeen don wax combat final. Macky Sall bu arrêté Ousmane Sonko combat final dina am ñëpp xam nañu lan mooy combat final. ngeen de Macky Sall bu defee troisième mandat da ngeen koy fekk ci pale bi Macky Sall njuy leen deful troisième mandat sénégalais yi génnuñu taaluñu xeexuñu ba ñu jàppee Ousmane Sonko et dans les stades ce sont des sénégalais yoo xam ne dañoo am conviction ci seen ci seen ngëm-ngëm ñoom ñooy manifester de manière pacifique.

Macky Sall bu defee troisième mandat mii di ñuy déloger ko déedéet xamuñu lan la yàgg ma sa wax dafa leer mbirum troisième mandat Macky Sall la ak askan wi parce que ñun xam na ne même Macky Sall bu bokkoon midi ñu gagné ko donc ñun amuñ problème boobu mag Sall bokkoon sax daf ñuy gën a arrangé pour te dire. maam kay loolu ngeen bëggoon. ah kon yow mënoo wax une chose. loolu ngeen bëggoon da ngeen naan wax ci kaw. nii rek di protester mais en sourdine seen vœu moo doon Macky Sall wax troisième mandat réew mi tàkk. mukk si en sourdine loolu moo doon seen vœu. soxna Maimouna réew mi bu tàkkee te bu bokkoon xamoon ngeen ne du gagné. réew mi bu tàkkee bu tàkkee man damay rëcc. ma ne Macky bu bokkoon. bàyyi rek bàyyi il moo leen doon arrangé non defal ndànk rek yow da ngay wax une chose et son contraire li wolofe naan di nga wasin baa nga dem tool réew mi bu tàkkoon ma dama ciy mucc. ah yàgg ngeen def des appels dama lay laaj ndax réew mi bu tàkkoon man dama ciy mucc waaw mais xëy na da ngeen fàtte woon ne bu réew mi tàkkee doo leen ci mucc. non xam nga xam nga yow xam nga ma. kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo bobu nga xamanteni ni kii di El malik Ndiaye chargé de communication bu parti boobu Ousmane Sonko jiite woon te ñu dissoudre ko muy pasteur bi mu jàkkaarloog Maïmouna Ndour Faye yaakaar ni débat bi ça a été un peu tendu entre kii nga xamanteni ni mooy El malik Ndiaye ak ki ko invité woon muy Maïmouna Ndour Faye parce que ay contradiction lañ ci gis yoo xamanteni El malik Ndiaye mi ngi koy yëkkati di ko wax tey mooy li may wax chaque jour rek nee naa leen Pastef dañu foog ni que dañu am expérience alors que amuñu base politique amuñu école politique boo xamante ni kenn ci ñoom jaar nañ ci des gens ils ont été formés de 1962 par des terroristes yo xamanteni ni ñoo leen doon fekk ci seen ay pavillon étudiants tay ñoo ñoo mag and ak Ousmane Sonko bëgg former ben gang pour changer xar kanamu Sénégal manam déstabiliser ko jaay ko donc ci biir loolu yaakaar naa ne tey El Malick Ndiaye tey ay propos yi mu wax dafa mel ni El Malick Ndiaye nekkul woon Sénégal parce que su demee ba nga xamante ni Maïmouna Ndour Faye mi ngi koy tiiñal diggu bëccëg ndar ndarkam ci loo xamante leader am ak mentoram moom moo ko waxoon moo taxaw fii ne ma ils vont rendre le pays dans le chaos Ousmane Sonko taxaw wax ko Ousmane Sonko jógee Ziguinchor ne on va déloger Macky Sall Ousmane Sonko on va fa Macky Sall su nekkee trois su bëggee forcé de troisième candidature midi du ko fa fekk tey El Malick Ndiaye bi yor communication bi di waxal moom moo mën a taxaw ne loolu yëpp amul ne mosul dégg benn yoon bu ko Ousmane Sonko waxee Ousmane Sonko téeméeri vidéo am lan la fi taxaw wax on va rendre le pays ingouvernable on va semer le chaos on a d' autres moyens de combat yoo xamante ni dañ leen ko wax ci suuf mooy combat yi nga xamante ni gisoon ngeen ko keroog bi le premier juin ñi taxaw ci biir autoroute bi yor ay masse 36 ñi gis ay nit yoo xamante ni ñi ngi yor ay armes à gis ay cocktail molotov loolu yëpp Ousmane Sonko wax ko fi tey El Malick na ñoom dañu utiliser beneen formule xeex parce que dëkk bi su tàkkee ñoom duñ ci mucc te Ousmane Sonko chaque jour lan lay wax deuk bi su Ousmane Sonko bokul deuk bi tak dem na ba Ousmane Oustaz Assane Seck liko ko tax manam moy Ousmane Sonko su bokul ci élection bi deuk bi tak donc je crois que tay souvent li may wax rek ni bok ci Pastef bok ci Ousmane Sonko dañu réer parce que peuple bi da len devancer parce que tay su demee ba xamal ni que ñun ñi ñom utilise nañu benen façon combat bo xamanteni tay ñing koy combat moy lan jeunes yi nañu dem ci stade yi di way Madame, di fecc di foo di ree Sonko Namon, la je crois que ils ont eu peine perdue Je yooyu ñooy demaat ci stade bi taxaw ne Sonko yaa tëddee Adji Sarr jeunes yooyu ñooy demaat ci stade bi taxaw ne Adji nañ la donc je crois que ñi jiitee Pastef doon ay cadre nekk ci kanam je crois que ni seen mentor réré, non la ñu en tout cas muy benn débat boo xamante ni Maïmouna Ndour Faye am na ko ci dans l'ordre donc ce qui montre au Sénégalais que les éléments de Ousmane Sonko ils ne sont pas constants dans leur

toujours dans votre acte du jour euh, du jeudi 21 septembre 2023 li nag muy rebondissement sur l'affaire affaire Awa Baba Thiam ku nekk xam na ni affaire Awa Baba Thiam ginnaaw audio fuité yooyu ba mu génnee woon ginnaaw bi mu doon mayee doomam ci mayee doomam boobu nag déggoon nañ ci ay kàddu yoo xamante ni ki mu ko ndayale won ay audio yo xamanteni ni na fuité mom ci bopam mo porté won plainte ginnaw lolou mu jël téléphone mindanam di envoyer ay menaces de mort ay injures di calomnier ki nga xamanteni moy xaritam bi daté plus de 20 ans ginnaw bi affaire bi démé ci loxo yom ki di Awa

tëgg ay boolam def léppam ba noppi toog di jooy Olof Njaay nee na nag ku njëlu di jooy boobu yow yaa xam li ki dee parce que bi mu jëlee téléphone di yónnee ay message di saaga ci téléphone bonam maanaam lu muy def ñemew ko ginnaaw nag bi machine yi waxee enquêteurs yi wax bi ñu convoqué bonam bon bi moo avoué lépp xamal ni que Awa Baba Thiam moo doon jël téléphone di ci def crédit di envoyé kii nga xamante ne mooy Salla Sow ay message di ko saaga di ko injuré di ko menacé de mort ginnaaw loolu la ñuy jël Awa Baba Thiam déglu ko biñ ko dégloo ba nopi yóbbu ko ca fa ca kaaf ba ni tay lay dem wuy ji ki nga xamanteni moy procureur ginnaw biñ ko libéré démb manam retour de parquet lañ ko defal mais liberté bo xamanteni tay day wuy ji jiwaat sur convocation à partir de 16h su demee foofu nag jàkkaarloog euh, juge bi yakarna ni si la édifier soram dañ koy def euh sursis dañ koy tek sous mandat de dépôt day am liberté provisoire en tout cas li wànnante di mu jéeg bëtam tey lañ koy xam ci yi menace de mort calomnie ak injure yoo xamante ni mi ngi ko doon def par SMS toujours dans votre acte du jour euh, du jeudi 21 septembre 2023 xam ngeen ñi ngi jëm ci ay élection présidentielle le 25 février 2024 incha allah boobu ba tey nag gis nañu candidature yu bëre ñi ngi andi sow mais ñoom ñëpp ay candidature à la candidature lañu kenn ci ñoom sa candidature validégul benn candidature kese moo mën valable jamono ji ñuy wax yéen mooy candidature bi nga xamante ne mooy candidature Benno Bokk Yaakaar alors que le président la République porté choix am ci kaw Amadou Ba ci bir candidat yoy nak meun nañ leen ci listel ay candidat yo xamanteni tay tey suñ leen xeyma mat nañu ci 34 wala ëpp ko ëpp nañ ko sax ki ci ñeuk manam moy Khalifa Sall nenañu candidat la à la candidature Ousmane Sonko candidat la à la candidature Déthié Fall candidat la à la candidature malik Gakou Babacar Diop Al Alassane nia Aminata Touré elas Diouf Maître Moussa Diop Mohamed Ben Diop Mor fay abdourahman Diouf Siré Sy Bougan Gaydani, Marité Onyan, Ali Oulo, Cheikh Abdou Mamadou Lamine Diallo Cheikh Dieng Cheikh Oumar Diagne Ndongo Ndiaye Abdoul Mbaye Idrissa Seck Alioune Sarr Mo Gate, Pape Djibril Fall Ibrahim Adat, Mamadou Diop Croix, Serigne Bassirou Khadim Awabala, Daouda Ndiaye Ibrahim Sissoko Fatou Samaké Thiam Moustapha Kan, Aïda Aïssatou Rose Wardini Doudou Sidibé, Anta Babakar Ngom, Tierno Alassane Sal, Amadou Ba, Karim Wad, Boubacar Kamara, Mamadou Ibrakan, Malik Gay, Mamadou Saou, Jean-Baptiste Diouf, Biram Mangara, Alingou Ndiaye, Cheikh Alassane Sen, Djidjak Faye, Mayassine Kamara, Ibrahima Khalil Djoura, Docteur Seringue Diop, Mamboy Diao, Docteur Aliou Kamara, Mamadou Dieye, capitaine, docteur Chertigian Gadio, professeur Amsatou Sidibé, Salah Mar. Déjà 58 candidats présents Nous sommes candidats lañu à la candidature 58 personnes taxaw nañu Et ci ñii ma lim seen tur mën naa ne sénégalais xamuñu ci lu ëpp 10 donc am na ñoo des ni dañ jàpp Sénégal di ko Madame Narsen nax seen bopp la mooy wax rek ci candidature yi de moo ci wóor candidature u Amadou Ba boobu moom na ba ca topp bu Khalifa Sall mën nañ ko firndeel bu Karim Wade mën nañ ko firndeel ci kaw ñu wàccoog seen cutis fiscal ginnaaw amande yu ñu amoon suñ ko fayee seen candidature ñoom mën nañ ko assurer parce que li ñu soxla ci parrainage am nañ ko ba noppi soit 120 maires la wala 13 députés wala 0,6 le minimum waaye li ci jaaxal nit ni nag dañ ci gis ay tur yoo xamante ni kenn ci Sénégal qui xamu leen seen nataal sax tey qui ko génne woon di Sénégal, qui Sénégal kenn xamu leen kon nañu bàyyi Sénégal bu ñuy foowee ñu bañ a nax seen donc ce que je veux dire toujours Madame, déjà 58 candidats pour une population de 18 millions d'habitants 18 millions d'habitants, imaginez 58 candidats pour pour a Nous avons 58 listes ci table yi yow voté 58 listes Vous avez bañ gàcce ga dugal ko ñaata jour def donc vous le parrainage de am solo la. moo le parrainage lu am solo dénigrer parrainage maanaam on ñi nga le sénégalais sax avez ñu carnet d'adresse Vous bëgg créer palmarès Beaucoup naa ci l'élection présidentielle Sénégal n'est pas dëkk bu c'est une république soyons logiques le peuple sénégalais Dieu s'en matuwaay xam ni que Sénégal kenn le président de la République Macky Sall a traché le chemin Mais nous, pour cette fois-ci avons am choix ku nekk tànnal boppam waaye bu mu tax golo bu jóg rek nekk candidat la daf bëgg a jiite réew Sénégal du ku mu neex moo koy jiite en tout cas nous leen indiloon tey ci seen acte du jour du jeudi 21 septembre 2023 fii ci VIP People TV s'informer juste et vrai abonnez abonné ba noppi bu vous faire bës cloche de notification bi ngir jot une vidéo je vous donne rendez-vous à demain avec un autre numéro d'ici là restez scotché sur nos programmes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 yow mi am jafé jafé ci walu new katan sa ndoxu awra baxul wala sax sa awra noy kay ma jox la solution bi ci gëna gaaw produit 100% bio bagni ngi muy produit bo xamné dafa naturel amul ben effet secondaire dañu la koy jox nga bolé ko ak limon diko nan matin ak soir mu di say jafe jafé neexal sa bir am nañu pommade bo xamné ne diwé ci sa awra mu daal di kuy dëgeural di jël ko wayé nak duko guddal la bile pommade Momitam dafa naturel lépp loo ci jël le le ben effet secondaire Jokol ak ñun yow ko 77 751 59 59 Ou wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox satisfaction totale Si amul ñu daldi lay dello sa ñun rek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 Ouba, Michui Ouba, poulet Ouba, pigeon Ouba, pentade Ouba, Bol Ouba. kaay Wakla, wax la dibi safe 77 629 0000, fa Moi 77 633 57 57 Fou Michui Nehe, Moi dibiteri Ouba fa poulet neexee mui dibiteri Ouba te nag Wakla, dibiteri Ouba Commandel, ñu livrer le fangané. Boule ne la tamit defal say commande tabaski defal say commande bo amé xew defal say commande boy dalal ay nit defal say commande nga xamni débiteur débiteri Uba dalay defal méchoui bu tok do defal dara débiteri Uba livré la cey Uba moo jaaxal réew mi